Diène Diouf nekk euh, président commission finance fii ci conseil municipal bu Fatick tey nag euh, dañ fi euh, daje woon en réunion de conseil municipal monsieur le maire Matar Ba présidé ko mu nekkoon session boo xam ne dañ ko jagleloon premier virement de crédit bi nga xam ne mooy suñu année budgétaire deux mille vingt quatre moom lañ njëkk a def. virement de crédit nag euh, boo ko déggee da di opération budgétaire boo xam ne lu normal la parce que boo amee budget primitif dafa am ay prévision yoo xam ne ñooñu ngay def prévision ay natt la am na yoo xam ne mën nga ko natt mu am am loo xam ne mën nga ko natt aussi fekk ñëwul comme budget bi aussi dafa dépendre ci capacité de mobilisation de ressources yi nga xam ne moom la commune bi am waaye ren spécialement yàlla dafa def nattu bu daanu woon ci kaw waa Fatick muy lakk-lakk bi amoon ci marché bi rubrique boobu ñu jëloon montant bi nga xam ne moom lañ ca defoon yépp ñu mobiliser ko jagleel ko sinistré yi jox leen ko ci diir bu gàtt muy loo xam ne Fatick yépp rafetlu nañ ko ñi nga xam ne ñoom la nattu bi dal seen kaw tamit rafetlu nañ ko lool naam nekkuloon ñu fay leen li ñu ñàkk waaye dañ leen won ne ci askan wi lañ bokk te mairie comme soxla askan wi moo ko tax a jóg monsieur le maire ak bureau municipal am ak conseil municipal bi ñu waxtaanee ñu jël enveloppe boobu jagleen leen ko te fi ñuy wax nii ñoom ñëpp jot nañ li nga xam ne moom lañ leen waroon a jox am na ñoo xam ne buñ taxawoon tamit commencé ndi nañ alors mais loolu bu amee tamit nga jël loolu yëpp jagleel ko il faut rubrique boobu nga alimenté waat ko moo taxoon ñu dem dans le cadre du fonctionnement ñu def benn virement de crédit boo xam ne dafa am fu ñu def ay prélèvement affecté ko ci yenn rubrique yoo xam ne yooyu aussi il faut ñu def si dara soit renforcer ko e ci beneen bi nga xam ne moo ci gën a am solo ci fonctionnement boobu mooy li nga xam ne le partenariat extérieur parce que fi mu nekk nii commune Fatick dans le cadre de l'intercommunalité dafa am ay voyages yoo xam ne maire mu ngi koy envisager les conseils ak les conseillers parce que partenaires yi ñu am yenn saay day baax nga dem fekki leen te boo leen di fekki dafa am accompagnement boo xam ne mairie warloo na ko ak conseillers yi waaye aussi beneen bi ci gën a am solo nga xam ne aussi ci aspect investissement la muy euh, renforcement bi ñu def ci ligne bi ñu waroon a fournir grosse réparation pour les abattoirs muy abattoir bi nekk fii Fatick nga xam ne fan yële dañu toog ba préfet woote réunion boo xam ne service technique yi muy élevage ak service d'hygiène ñoom ñoo alerté dañu dem ba menacé ne dinañ tëj abattoir bi waa Fatick dootuñ am yàpp te xam nga loolu monsieur le maire Matar Ba mënul seetaan loolu parce que abattoir bi nag meloon na melokaan boo xam ne ña fay liggéey na mu bindoo ak lafay fay génn di ñëw ci askan bi na mu mel wax dëgg fa yàlla bi fa équipe bureau municipal demee ba gis ko defar ko taxaw si rapidement moo doon li nga xam ne mooy solution et dans moo tax dans un premier temps euh, les adjoints au maire gis nañ les services techniques ñi fi nekk muy SONAGED ak waa service euh, des sapeurs ñu leen di remercier bu baax a baax parce que ñëw nañ ak seen i engin ñiy dégager lépp li nga xam ne moo doon encombré waaye aussi ñëw ak seen pompe waa sapeur nettoyer bërëb ba ba lépp loo xam ne bu ko bët gisoon am nu mu mel sa xel di tey tey boo fa dematee da ngay xam ne mbir moomu am na waaye nag mairie ne du yem foofu parce que dafa am ay investissement yoo xam ne dañ ko fa war a def naam mébét bi boo seetloo conseil bi tey conseil yi yëpp seen mébét mooy mairie Fatick taxaw tabax benn abattoir boo xam ne bu mucc ayib la ma ci profito leeral parce que dafa am abattoir bu ñuy tabax fii ci yoonu ñaaxar boo dépassé tali bu xonq bi dem gendarmerie ñëpp dañu jàpp ne abattoir bu Fatick la moo tax ay conseillers sax posé wu nañ la question lu tax abattoir boobu ba tey liggéey bi mënul yegg ci la leen le maire Matar Ba gindi won leen ne du projet mairi Fatick mais projet état Sénégal la te comme projet état Sénégal la mairie amul possibilité dugal ci loxoom xanaa kay ñaax gouvernement bi ñaax ministre de l'élevage ak madame la gouverneur bi fi nekk nga xam ne moom mooy saytu projet état yooyu yëpp pour que liggéey bi mën a démarrer waat parce que abattoir boobu abattoir moderne la liñ ci wax ak euh, jumtuwaay ya ca war a nekk yëpp bu ñu ñëwee wax dëgg dina gën a euh, tax liggéey bi mucc ayib. moo tax monsieur le maire ne dina ci taxaw waxtaan ak autorité administrative yi nga xam ne moom la war a waxtaanal tamit pour ñu xam ne loolu demande sociale la askanu département Fatick moom moo ko soxla mu teg ci ne nag bu ñu defaree li ñu war a injecté ci abattoir bi réhabilité ko ñun tamit mairie Fatick dinañ xalaat ci at yii di ñëw nan la ñuy def ba Fatick tamit mën a am abattoiru boppam boo xam ne bu mucc ayib la loolu daal moo fës ci li gën a génn ci li nga xam ne moom la fi conseillers yi wax te boo seetee virement de crédit bi amoon na yeneen point mais daanaka point yooyu kenn waxu ci abattoir bi daal moo nekkoon li nga xam ne moo gënoon soxal nit ñi ci wax te ay solution génn na ci incha allah